feetu Pâques desende ay waxtu yu néew tax ñu doxantu ñëw fii ci marché bi Bignona faree fii ci diwaanu Grand Yoff ngir sekk waxtaan ak yile jaaykat laaj leen fan la prix yi toll. kilo bi 4000 la libre bi ah, kaw na ci parce que état bi tamit foog mu jàpp mu jàpp ci. daanaka yomb jóge nañ ay 2000 2500 3000 3500. 4000 xam nga instant bi mbaam pratiquement amatul dafa manqué quoi. gannaaw si loolu ñoom ñi ngi xamle ne clients yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaye taxu ko takku lool. comme vendredi bi nii gars yi ñu si bëri dañuy nekk ci ngalax beeg yooyu léegi nag bu ko defee suba la ñuy gën a am affluence su yi waaw. clients yi ko bëri ñu ngi ñëw par ndànk-ndànk jëm naa fi ba ay 17 euh, heures 18 heures. dina gën a bëri ma demain samedi ci la nit ñu di yëpp. bi la jaaykat di xamle seen njaay mi yenn saay day soxe lool. ñun de xam nga si village yi la dem di jëndee jëndi jee mbaam tey boo amul financement bu am doole pour yor mbaam doo ko mën a yor parce que mbaam tamit lekkam dafa metti lekkal ko dafa metti tout ça mais aussi am na tamit ñi nga xam ne dañuy jógee si région bi comme ay Guinée Bissau di ñëw fii di jënd ay mbaam di ko yóbbu Guinée loolu moo tax nag affaire yi gën a manqué aussi. mbaam. nekk ab jur bi nga xamante ni dañuy faral di ko nemmeeku bu baax a baax ci feetu Pâques ndax bokk na ci lu ko waral ñëpp moom lañuy faral di jëfandikoo ci bile feet gannaaw ci loolu yile jaaykat ñi ngi sàkku autorité yi ak état bi ñi taxawu leen ndaxte yenn saay dina jafe loor pour ñu am yile jur ñi yitewoo ci bile bés